gudd na trop maa ngi leen di maa ngi leen di jéggalu ñaan suñu borom ñaan suñu borom euh, mu may diñ koy ñaan hmm. suñu yaakaar yàlla bu mu tase fenn réew mi yàlla na ñëpp bëggante yàlla na ñëpp ànd yàlla na xol yëpp di benn yàlla na xol yëpp di benn yàlla na xol yëpp di benn te diggante këru diine yi nag hmm. ku ci wax wax ci lu rafet ñaanal de si Malick ku ciy wax rek wax ci lu rafet. Mm-hmm. ngir jëm yàlla. Mm-hmm. ku ciy wax wax ci lu rafet. Mm-hmm. samp la ñu amee boo xam ne yàllaa leen ko sampal. sampal lañu ko seen bopp. samp yàlla nag ku ko bëgg a daaneel mën nga daanu. waaw diine wax du ci jóg. wax du ko tas. waaye nit mën na ci wax ba yàqu. waaw yal nañu yàlla dolli sutura bi allahumma amiin kon nag fatiha li papa an wax léegi. wala uh, Ali wala Ali Tan wax ko ni يرن تبي بمين يعني تخون تما فاتح لي يعني وهي سيدي حاج مالك بمين يعني فاتح أكثر تدف فاتح أكثر لا تفتح له بولي مين يعني الله أكبر فاتح أكثر لا تفتح هناك دوينة دوينة كي يعني كي الله كي بس بس دقر yal nañu yàlla nangul luñ ci ñaan. amiin amiin jàng Fatiha. jàng salaatul Fatiha ngeen jàng papaan nga jiite ko. laalin ngeen jiite ko. ñaan ko yàlla nangu si bu ñu xeeb tàllal yàlla loxo bu ñu xaar kenn ci suñu digganteeg yàlla ñun ñëpp a war a tàllal yàlla suñu loxo fi mu nekk nii bu ne jaaxle nga te pexe laa hawla wala quwwata illa billah bi ñu ko wóoloo ba di ko wax ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعله يرجعون بابو لولو فتبارك الله يالله نانا بنت بي تجول كو بغي na ñu jàng ñaan googu te ngeen jéggal ma nag guddaay bi. déedéet doyalu ñu sax si Malick doyalu ñu sax wax léeg-léeg ma <laughs> tuuti rey na rey na waaye maa ngi leen di ñaan rek jéggal. macha allah ñu jàng Fatiha salaatul Faatihi. amiin ñu def ko ko. amiin waaw na ko kenn na ko kenn ku nekk jàng. waaw ah. na ko kenn ku nekk jàng. yàlla. allahumma salli ala sayyidina muhammadin kenn ku ne mën nga ko. Mm. noo ko waxee baax na. julli ci yonent bi rek am solo. fatiha nag ñu ñu jaar ca waaw ngeen jégal waaw ngeen jégal ma maa ngi leen di jégalu yal na yàlla mottali yal na yàlla saxal may leen wér may leen gudd fan koor gi yal na ko yàlla nangu te ñu àggale ko ci jàmm bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu nuyu képp ku ñuy déglu ah, man def naan guleet guleet tey hmm. moom ma sa wax ci lii hmm. waaye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 jërëjëf papa ba jox la soxna ba jox la soxna Aida mu tàggoog yéen waaw. jox ñu ko waaw. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw si. waaw papa an an.